léegi li ngeen bëgg daa yomb benn ñaa ngeen dékk moo géet di ko tàllal loxo di ko ñaan alaaji mbay alaaji mbay cinq millions yi suñu wàll na ñëw alaaji mbay <laughs> waaw alaaji mbay eh, keroog de biñ koy wàññi biñ koy wàññi xaalis bi maa ngi taxaw mbiisoo ko jox ma su ma fekkoon xaalis boobu dañ koy séddoo force alaaji mbay waaw li ngay wax non ndax mënu daan leng sa daan boysil ñu koy jox xaalis comprendre nga te man man ne fi dugg seen écrit rajaxe ko moo gët si boppam yàlla na ko yàlla defal jàmm ndax loolu dafa rafet quoi ama alaaji mbay gëj a bëre toog ay at bërewul te si ay ay defet la jóge nga may ko 5 millions loolu dafa rafet. mbër yëpp léegi nag géwél yee war a wayaan mais mbër yee wayaan. fi mu toll nii man géwél pire laa. déedéet man waxuma waxi yow de man nag géwél yi ñoo war a wayaan mais fi mu toll nii mbër yi ñoo jël wayaan gi. déggoo lu ma la wax loolu dafa rafet. moo gët bu même bu ma mayul dara sax geste boobu dafa noble quoi. na ko gars yi bàyyi mu jóg bu la kiloloon nga bale fi mu toll nii. ba ma koy fobeereel xanaa xamoo ma koy fobeereel barki Serigne Touba Kara Dollé sama gaayan la moom mu ngi sànni moo gën xeer nee naa ko yow li bëggoo dara sa àdduna. ba li nga wax. wër na alxuraan man moo gën su ma ko na dama koy fobeereel noobul la. waaye ku nekk ba États-Unis di def ay teraanga ba mu juddoo ba tey Las Vegas rek laay rêvé dem. billaay walaay mosuma fa waaw dama bëgg a dugg états te moo gën laa si yaakaar ma jàppale te yàlla tax gaayan Fass te il ma dem yokk doole ñëwaat. man marab laa bëgg xam foo ko nga. delloo non non li may wax nii non sama xol laa moo gën yàlla na ko yàlla defal jàmm. même bu ma yóbbuwul sax xam ak tamit keneen mën na ma yóbbu mais man moom laa bëgg mu yóbbu ma. waaw wasaare làmb tamit dagg neexul yéen yéen ay bomb tele bu gën si télé yi mooy tele bi daa dem ba États-Unis waaw loolu de am na euh, ñoo ngi nuyu ki nga xam te ne mooy ATM ak. Baabu day bañ ñu tudd turam waaye ATM ñoo ngi ATM gaañ na Ousbane la ATM. barki euh. yàlla Ousbane ba nga tamit sa gaañ la. waxal lag moo génn nag gaan mu def différence eh. man trois sax baax na. cinq sax day bëri trois rek moo la. Ah. wala mu dagal ma billet ma ñëw. dem liggéey yokku doole yokku doole ndax booy bi dama ko bëgg a kor dóor ko mu waaj. mos ngaa voyagé. mosuma génn fii. Gàmbi laa mos a dem. tamit gars yi nañu jàppale gaan ñu dem ñëwaat. est-ce que fii jàppale bi moo ngi dox noonu fas Mbao. barki Serigne tuubaa Mbacke ay xuur saw moo fi nekk Moussa Souley ay Doro xam ay Jelaani mii ah Vmas mu ngi siy jàpp moom borom Medina Fass Vmas borom saag yeeg dàll yi ak Birane ñaa affaire yooyu noonu ñoom Maodo bu France xam nga Moussey Khalifa Wade ay ñoom Ahmed Gueye xam nga gars yi Baba Ndiaye Omar Ndour Bambara wóor na yàlla.